maa ngi fii ak Père Max xanaa ñu bàyyi ko mu nuyoo Père nuyu naa. maa ngi leen di fay fii di kontaan ci yéen. Mhm. tey ñu ñëw fekk si ki nga xamante mooy Siteu mun a def point de presse naka nga gisee Siteu ak bi nga seetaanee Papa Sow lan nga jàngat ci moom. waaw gis naa ne papa fonk na combat bi am na doole fonk na combat bi. am na waaw gis naa loolu mais li may wax rek mooy Papa Sow bu ko fonkee fukk ñun téeméer lañ ko war a fonk ndax ñoo gën a doon xale. Euh, moo tax ñu nit fonk nañ ko lépp luy maye ndam ñi ngi ci waaw dem nañ fi ñu war a dem moment bi may wax yow pare nañ. mais fii képp koo laaj mu ne la euh, sita xale la papa mag la est-ce que papa mag la. non papa du mag papa du mag ñun ñooy mag ñi ñuy toog di naan attaaye di waxtaane entraînement ñu papa du mag. mais keroog dama ko dégg mu ne li mu doon tiit ci ci Siteu li mu ci doon gën a tiit amu ci ndax Siteu amul doole te doole ju ci doon tiit. waa xam nga loolu euh, koo mag da nga koy magee dara. expérience lay jéem a jaay sita mais Siteu xam na loolu te ñun ñi dar Siteu duñu ay dof nag xam nañ li xew euh, pour loolu bataille psychologique la mais buñ ne renkum Papa Sow man tam magee Siteu fuuf di am doole Siteu ñàkk doole Siteu yabewuñu noonu sax. te buñ sumee ko dañu xam ne Siteu am na doole. waa da ngaa jàpp ne buñ jàppantee di ñi doon wax ne Siteu amul doole wala boog dafa dafa tuuti dinañ gis leneen. Siteu du moroomu loolu tuut tuuti Siteu daa tuuti nag yàgg dañ koo dégg ndax bi muy débuté dañ doon wax noo ki daal du doon champion tey mu dem ba bokk ci star yi bokk ci VIP yi bokk ci ñi am bés yu mag kon moo lay wan ne liggéey na ñi ko darit duna ay cuune miin nañ terrain bi kon ñi ngi xaar rek le jour ji yàlla ànd ak ñun mais bu sumee ko li ma naan entraînement du fen bu sumee ko danañ xam ne c'est te liggéey na te bëgg na komba bi. Mhm. kontaan naa jërëjëf ah, président ngi nii. ñu fii ak ki nga xamante ni mooy président écurie Lansar xanaa ñu bàyyi ko mu nuyoo président nuyu naa bon ñu ngi lay fay yéen waa Wassare di ñaan yàlla dalal bi ñu leen dalal fii ci école di Lansar di entraîner ngeen ñëw di jël si conférence de presse su Siteu bi ngi leen ciy gërëm te di leen sant. tey ñu gis Siteu di def euh, point de presse mais même budul moom gis nañ fi yeneen xale yoo xamante ni am nañ ay combat te nekk nañ xale yoo xamante ni neex nañoo yóbbu làmb nag seen diggante yéen ak ñoom lan la. suñu diggante ñun ak ñoom diggante nit la ak ay kili ak ak ay ay ay doomam presque ak ay jarbaatam parce que ñii suñuy rakk lañ ñii suñuy jarbaat lañ ñii suñuy doom lañ ñu fekk leen ñu nekk ay xale yoo xam ne yéen ci 15 ans lañ débuté 18 ans jàpp 20 ans ñu ànd ak ñoom tey jën ba indi leen au sommet loolu rek moo waral tey jën xale yi am engouement bii ñu am. te yàlla def tamit ñun ñu def ñoom ci seen bopp ak ci seen biir mooy képp ku ci am bés na ñëw jëpp ñëpp ñëw jàpp ci ñoom moo tax tey jii ñoom ñëpp ñëw dajaloo fi pour jàppale Siteu ci bésam bi mais ñu gis euh, Siteu nekk na xale boo xamante ni ñëpp dañ na woon du dem mais tey mu am combat boo xamante ni maanaam mën naa ne combat ci combat yi gën a neex ci la bokk naka ngeen di waajalee Papa Sow Papa Sow ni ñu koy waajale mooy comme ni ñuy waajalee mbëri yëpp rek parce que Siteu moom xalel la mais yàlla daf koo teg benn nattu mooy depuis mu commencé bëre grand combat ba tey mësta am bés bu tuuti mësta am combat boo xamante ne ni amu ca adversaire boo xamante ne ni ñëpp dañ ne kii bu ko jàppee nangam nangam mais nag yàlla dafa def li gën ci un athlète yàlla daf ko def ci moom mooy nit ku gëm boppam gëm ay kilifaam gëm aussi ay way waajuram lépp lu muy def moom daf koo gëm. da koo gëm te lépp lu nit di def aussi te gëm ko rek bu bés baa yàlla mën na ko ci defal jàmm te ku gëm mbër gi la ku gëm li muy def la ku gëm école de lutte bi la ku gëm aussi ñi mi ànd ak lañ. ñu gis la nga nekk président bi lan ngay wax xale yi nga xamante ni ñoo na ànd ak moom ci ci ci bésub làmb ja jour si. bésub làmb ja xale yi nga xamante ne ni ñoom la ñuy ànd ak pratiquement ñoom ñëpp réunion nañoo ak ñoom ci lu dëkk jàmm gën Lansar Diacksao ak li ko wër xamal nañ leen ni leen kii ngeen àndal nit la ku nga xamante ne ni mënul wan ginnaaw ab xaritam parce que ku ci ànd ak moom bu luy nuroog violence bu amee bu ñu la téyee moom dootul mën a dem bàyyi la. a dem bàyyi la te bokk na ci li koy yàqal mooy violence nañ ko moytu ba ñoom ñëpp ànd nañ cee d'accord nañ ci ba zéro violence lañ jàpp ñun ci ñi nga xam ne ñooy jóge fii ànd ak moom ñeneen acteurs yi nga xamante danañ joge ci yeneen côté wax nañ leen xale yi nga xamante ni ñoom ñooy dem pour bu bës baa tamit nañ xool ñoom naka la ñuy ànd ba képp koo xam kii war na indi luy nuroog violence ñu seet nuñ la seppee ci biir soxna incha allahu taalaa daal jàmm salaam dem ndànk dox ndànk ànd ak moom ci jàmm ñaan yàlla yàlla may ñu ndam. kontaan nañ ci président. jërëjëf ñu ngi lay kontaan ci yow tamit bu baax te di leen ziar te di leen gërëm bu baax. jaajëf.